Assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi suma gani dilin set dilin Harid Mari Bashir a dilin nuyu bu baaxa baax guys dilen. set dilin ziyar dilin wax ne mbaa defu leen dara yi nang si jàmm yéen ñëpp set naa leen ku nekk foo nekk rek di la jox loxo di la laaj naka sa jàmmi yaram ak sa jàmmi njaboot di leen ñaanal yàlla bu baax a baax a ba rek duñ koy rek di wax ne yal na yàlla génne feebar bi lëmbee ya, àddina ko fi yalla toog ba yëpp nekkaat normal incha allah rabbi si ñàkk seen bakkan yal na leen yàlla xare àjjanatul si waaw gars yi mu ne ko tey nag ah dama la indi laatal another recipe tey te dama bëgg a togg ci bulet waaye bulet bi nag duma ko toggee jën dama ko toggee chicken breast waaw chicken breast laa ko toggee parce que man jën bi wax dëgg jën bi neex na lool lool lool makrel bi tamit neex na lool lool lool waaye tamit chicken breast bi tamit si gars yi neex na lool moo tax nag mu ne xaaral ma ñëw won leen ko tamit ngeen xam su ko defee tamit ñoo xam ne xëy na musuñ koo try ñu try ko rek seet waa gis ngeen maa ngi fi amee suma ingredients yi gis ngeen ne suñ chicken breast bi ngi nii mi ne ko ne mu ngi nii dama ko nag am blend together pare waaye dinaa indi vidéo bi bu ma ko doon blend pour mix ko yëpp naa la wala lan laa fa def pour blend ko soo gis ngeen mu ngi nii maa ngi nii maa ngi ko mix dama si def spring onion dama like blend spring onion am garlic bu doy black ak tamit um naka um kaani bu dija benn ak um couple of things daal di ngeen ko gis ci vidéo boobu noonu su ma ko wanee waaw ba pare nag gis ngeen ma jël ko nii ginga man borom bitik bi dama dem ba pare ma lifin ko soo buggee gars minsal la ko wala tamit soo ñëwee nga minsal ko sa boppa si kër gi waaw ma am fi ni tamit suma yu sew gis ngeen maa ngi fa amee suma supame bu dija bi bi moom su ma defee yëpp dama ragal ni ma génnee kër gi <laughs> su ma peree rek génnee ko rek xaaj ko raxas ko bam seet rek ma dog li ma soxla ma am fi ni tamit suma sweet pepper as well dina si neex am suma carotte ma am fi suma garlic suma benn jalapeno rek pour rek am walaale ko ak moom am fi suma onions gis ngeen suma favorite yi mooy red onion ak tamit mix ko together with white am fi suma kaani bu di jëm mu si bi la nekkoon ma génne ko ne teg ko pour wan leen ngeen gis ne tamit maa ngi fii nii tamit suma black pepper mu ngi nii am suma algréde bu ma dee am euh, vegetable seasoning bu ma dee gunge nga xam ne moom moom laa de substitute jumbo bee yooyu am fi suma chopped onions xaw ma ah man daal maa ngi nii daal ah chopped tomatoes <laughs> fu ma jógee am fi tamit suma euh, tomato paste moom saa mu nekk fàtte ko waaye tey duma la fàtte de tomate loxati tomato paste duma la fàtte mukk tey man fii nii tamit gis ngeen ne suñ kaane bii nii jaay matis am hot chili am sauce suñ stika bi dafa dafa génn waaw ma ne ko ne Motis hot chili sauce kaane gu saf la ku si mos a gudd daal mos ko kaane gi neex gi neex loo ko lekka lu lekk nga ko see def parce que dañ ko togga togga boo xam ne dañ ko def mu natural wax dëgg neex yàlla togga bu togga bu bu bu laay bu bu sell la ko am Mati Jaañ togga waaw ñu koo jaay ñu am tamit suñ roof bi roof bi tamit dañ ko def fii bi ñu doon blend def nañ ko si soo mu ñu gungee as well suñ roof bu saf bii nii ñu am fii tamit suñ maalo suñ broken rice gis ngeen moom laa def ma fii suma spring onions waaw spring onion bi nii moom li ma dee def léegi mooy dama dee jënda su ma ko jëndee mas parce que moom daf soo ko defee si freezer bi rek si fridge bi ba gaawal la waaye soo ko jëndee su même mu ngaa jëndee lu bari nga ras ko ba mu set slice ko yëpp daf ko sa fridge si sa fridge bi si suuf ci freezer bi laa miin not si fridge bi fridge bi si kaw moo ko dee laxloo freezer bi si suuf egis na soo bëggee tooga dangaa jël rek ji dangaa jël tiba rek def loot bugg a lootal lu des nga bàyyi ko ñu am fi tam suñu bisaab moom tam dañ ko defar ba pare dañ koy def si biir yëpp mu yomba comme que Angleterre jot amut waaw moo tax yëpp dangaa def prix lifin rek mu yomba sooy tooga rek génnee ñoom fi tamit suñ diwlin soo léegi guys ñu ñëw nag teg suñ cin su ko defee nag ñu ñëw nag commencé nag ma ne leen naka la ñoo frayé suñ bulet bi waaw ci bu laa wax de ci bu let bu safa safa sax bu ganaar chicken breast waaw yéen ñëpp di leen nuyu la wax ne toog leen rek xaar waaw suma gaañi mi ne ma won leen man laa am suma blender pour dama ñëw nii blend suma chicken bi chicken breast bi bu ma bu buñ mince ba pare pour def ko laay bulet bi soo gis ngeen ne maa ngi am fii nii kaane bu dija ah, mooy am fresh pepper ba pare ma am fii nii tamit spring onion ma am fi tamit sweet pepper pepper as well bu green bi wala bu xonxa bi boo am rek ma am fii tamit suma garlic bu doy am fi tamit su am black pepper ak tam gi nga yi roof bi la roof bi suñu roof bi bu ñoo jaay xam nga loo roof bi am na pees parsley and everything moom mix nañ koy comme pour roof comme tamit ba pare mun comme que tamit mun nañ koo roofee suñ am am am naka ganaar so mun nañ koo jël ba réegi rek boole ko si suñ lu ñoo blend ci suñ blendee lii nii ba mokka sooga di suñ chicken breast bi nag dugal ko fii nii blendaat ko ak moom pour gis ngeen ne lii ngeen wal naa ko ba mokk rumbu gis ngeen mokk na bu baax so léegi nag mën nañ see def léegi suñ chicken breast gis ngeen ñu ko ñu dañ ma ko minsal fu ma ko jëndee kooku moom ma ko minsal waaye nag léegi léegi tamit su fekkee ne amuloo ko la ko gis nga comme soo ñëwee nii soo ko slice slice yu sew rek soo ko raxasee ba mu set nga dog ko dog yu sew soo paree nga lifin ko naka lañ ko da ah, nga def ko sa blender bi daf dee dem si blender bi as well so léegi suñ defee suñ li fini yépp after den faté na dañ wara def vegetable seasoning bi pour tamit mu dafa melni comme ngeen ne one full spoon léegi ñu def yépp ñu wan len nak so guys gis ngeen ñu fi nekk blend nako, mix na everything ma fi defon so xam nga li ni rek jox nako ci ba pare so léegi ba pare so len ko blend mën ngeen fa toxal tuuti diwlin rek tolof doxatu soo paree nag ñu yekk ko rek nak danka nga danka rek rule soo ko dank tam nga def diwlin sal hoy pour mum sticky so danké rek def ci sa diw danka rek def sa diw dafa dess yeen fa suñu bols nga bugga nga am sa bullet chicken bullet bu neex wa suma gaay gis ngeen fu nekk legi ñu ñew nak danka suñ bullet gis nga soti na fa tuuti diw pour mu bañ rek mu taxa foog nak tay mom gom rek na mëna sol glove parce que suma solé ko solé glove dafa nekk tay ci glove bi so haram ma rahas ko ay rek fomp ko léegi ñu ñëw nag maa ngi teg suma diw waa diw bi ñu try rek bismillah ñu dank suñu bled seet naka lañ ko mun a dankee rek gis ngeen yow yaay seet nag yaa ngi ko dankan ko bu ko dankee mu ndaw ndax mu season lañ ko bam sax gis nga li ma leen dew wax yi su record ñii ñi foog ma seet seen affaire lu tax xale yi record rek su ma récolté rek si la ñoo mun a xeex balaa ñoo xeex balaa ñoo commencé seen fight fight bi <laughs> rek may <laughs> rek may récolte non xale yi mere naa leen taxabuñ ko <laughs> ba pare gars yi xool leen gis ngeen bee liif parce que fàtte naa ko lim xoola bee liif bee ñu ne dañ ko si war a ci ruxal xam nga li ma dee wax ma ne ndeysaan moo ta olof Njaay mu ne ku lim juum ndekete sooy sooy lim sax lëjum lëjum juum especially sooy lim nit moo tax lim daal baaxul woo yaay léegi gis nga léegi nii laa ko def nag léegi su ma ko dankee yëpp nag bam daj su ma fry ma ñëwaat nag ko defee ñu fry ko ngeen nii ngaa def ñu hmm, pare nag raxasaat suma loxo yi ba mu set ah way yi de mu ne dama doon jéem a lifin lifin noonu noonu si time julli bi ne dama fix way waaye wéy way neel si yaa bañ a génn taraay naa ba soona waaye bàyyi ko foofu moo ko yëg de nde taxul maa ngi def li maa def gis ngeen gis ngeen naka laa ko xaaral gis ngeen gis ngeen xam ngeen lii nii dànk naa ko dànk bi bulet soo léegi dama pare rek fry ba mu baax mu am brown nice color nga génnee rek continue sa togga comme nooy toggee sa am li bulet rek naka lañ comme nooy toggee sa am ciy buleti jën xam nga am nañu dee def tamit am yàppa bi waaye man musuma try yàppa bi nag musuma try yàppa bi waaw waaye xam naa ne jën bi tamit mus naa koo try once wala twice daal waaye man daal si bii laa sigare bañ a si gars yi gis ngeen fu mu nekk dama doon seen da bi sans la soo bii da ngaa teg rek fry di toon la moo di padan di sah diubi. on both sides ele naa la siiwal si YouTube bi di fas wa maxa nga frayé bi ne li rek soo léegi nag ñu ñëw nag teg nag suñu figère na suñu togg waaw suma gaañ yi léegi fu nekk nag maa ngi ñëw nag defal suma gravy bi comme que ci bulet la soo li ma am fii nii mooy suma red onions and white ma am fii suma tomi chop tomatoes bu doon ko faale de ileen la moo nekk nii rek di na mi man la bëgg a distract léegi tey wax da nga xaaraan si ci bulet acaar léegi ma am nii tamit suma sweet pepper as well am def naa fa tamit suma garlic ba pare suma black pepper so mom la nak blend ko together Haram rek la mun suma gaay suma xarit bi xees bi dafa xaaraan si ciy bu leen de curai. curai. Mungkin đi di kubiki phát fasi gis ngeen ma ngi defale <coughs> suma yu sew yi pour fricasser waale ko ak mom ma ngi def carotte ma ngi defaale ko ngeen bi pour rek nga xam suma su bay ñurub du ma def ñurub bu bari léegi ma ñëw def suma tomato bi nak du ma def sax lu bari tomato bi am rek lay def parce que moom su baree daf dee mëna fa forox xam nga loolu ko dañ ko wadi bay xel suma tomato tuuti rek lay def Stefania nah, kenakan semua beli kami as well anak aku ada nasi semua beli kita kasih lah kok aku mau mereka ini lanyo mereka itu kita kasih eh. bayar dok lagi nyuwan len neng kita kasih bam dok balai mau nyuluk nyuwan len insyaallah gaya ini kita neng karena gini mungkin main desa sama nyuwan nyuluk eh. nyuluk deh tuh cendok terus mereka kita kasih eh, jenah nak kompas Defon na kam you seli ba pare so tuuti ñëw rek laa def bu mu pare tuuti ñëw rek laa def xam na yu seli moom ñor na ba pare ma ngi def nag tumbal si sama samay bulet gis nga bulet bee ngi def si yëpp soo paree na ko faya waaw ko defee soo paree rek nag fekk sa bisaab boor waaw bulet bi suma gaaj bi bulet bi safa safa safa safa safa ah warna na def ma fry ko mu fa def na am fry bu ñaaw bi waaye ba léegi du ko bàyyi de ba dina mu ngo gis ngeen fu nekk léegi léegi dañoo wàññi suñ lifin rek bàyyi ko nag allah rabbi ma ko guys gis ngeen fu mu nekk te ñu ngi ko def loo fit ba mu lifin def suñ hit rek baik ko ni daanaka sax mu ngi ñeer nanka nanka suñ lijum yëpp ñor na waaw soo léegi nag ñu xaar tuuti rek mu ñor gis ngeen suñ ñu ngi naka la rafetee bu ñu xaaral rek ñu ñor rek su ko defee nag ñu ñëw nag yekkal def suñu añ bu bu bu bu sew rek te simple <laughs> bii nag kan laa ko war a yekkal sax bii xee kan laa war a yekkal bii kan moo gën a kan moo bugg a ciy bulet ku bugg a bulet lool xaaral ma xalaat ku ku bugg a ciy bulet laa ko bugg a yekkal xaaral ma xalaat waaw yekkal ko ko. waaw suma gaañ yi fu mu nekk nag pare nañ nag suñ cu. Wow, am suñ bisap xool leen ma bisap ki rek bisap ke ngi ni legi ma won leen ma ne ko suñ ci yango wow suñ ci bullet ma def ni pegga sumay limong side ci bullet bu safa safa sa pere bullet be fa sakan ba bu ga de ci any amount of chicken breast boo jinda rek daf la ko de mën defal gis ngeen suñ cu wow ana suma gay wow sauce, na de xankañ soos mom soos na ba pare tamit sa dama tegaat soos à côté su soos gi jeexee rek ñu gën yokka yokk mi rek wax naa leen ne man dama bëgg a soos ak diw ah waaye mu góog ah gis ngeen kon gars yi ma ne ko ne macha allah ànd ak yéen suñu bisaab bee ngi nii ma ne ko ànd ak yéen ñu togg ci cigu saf gu neex gii nii ah waaw ma ne ko fu mu nekk nag dara desut mooy dem rek toog nag añ nag waaw di leen wax ne jëre ngeen jëf waaw ku bugg a toggal lii rek mun nga koo try is very nice ba pare tamit yomba na ba pare tamit am um, is very straightforward sa chicken breast moom ngaa ji ñu minsal la ko wala mun ngaa ñëw kër tamit minsal ko sa bopp sa blender dafa xel ba soo ko mince rek nga da nga koo slice da nga koo lelli bu ko bàyyi nu mu dëllee noonu da nga koo lelli soo ko lelli rek def sa biir uh, am blender blend ko soo ko blender ba pare nga am defaat si yow am sa spring onion ak yeneen yeneen lu yoo ko bugg a blender waaye am loolu ngaa njëkk a blend ba pare nga soog see def chicken breast bi nag nga blend ko together soo pare rek danka rek fry waaw. kon gaay leen wax Jeff ngeen jëf ci top bi thank you very much for watching di leen wax Jeff. ngeen jëf waaw bu leen fàtte subscribe comment like and share so li la leen amaloon chicken am naka chicken meatballs stew mom la leen amaloon tey jërë ngeen jëf waay kon boobu ñun fu mu ñu def ci dem def musera jak waaw dem def ko musera jak waaw won ko daal naka la <laughs> jërë ngeen jëf suma gaay yi dinaa leen gisaat incha allahu rabi suma beneen vidéo yéen ñëpp maa ngi doon xalaat kan laa ko war yakal waaye léegi bugguma ñàkk a fee yekkal naa leen ko yéen ñëpp di ma seetaan képp ku ma seetaan rek yekkal naa la ci bi dégg nga jërë ngeen jëf.